وجود وجه لمن تكريمه بانا في سار مولد من في البار ربانا فونتاب تي في تلخادم رسول alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki FONCAB ni fondation Cheikh Ahmadou Bamba ci Amérique ci njiitul Serigne Fallou Samb ak ñi ko àndal ñëpp sëñ Xaadim si sa ñoom ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu tàmbale ca bopp ba ci suuf di leen ziar di leen ndokkeel baax a baax te di leen. masawu coono te di leen ndokkeel ci li ngeen nekkee foofu te mooy seet bëgg-bëgg sëriñ bi ngeen nekk ci guddi ak bëccëg ba am ci ay résultat te nag ñu ñëw fii am loo xam ne dafa bokk ci liggéey bi ñu newoon nan ko bokk ak yéen andi ci ay leeral muy loo xam ni xalaat la bu yàgg boo xam ne am na am na ci ñun loo ëpp fukki at muy taxawal kër sëriñ Touba goo xam ne dañ koy tudde këru barkeelu yi kër goo xam ne dafa sëriñ bi bàyyi ci ndono moom lañ fay dajale ngir dafa bokk ci yi nga xam ne wërta sànku te buñ ko sàgganee euh, mën naa mujj ci foo xam ne fi du doon fa gën te lu boo ci moom njariñ la muy ay barkeelu yoo xam ne ay mm, yu mu fi bàyyi la muy ay barkeelu ak li nga xam ne seqoon na kook mag ñi ñu feeñal ko ñi nga xam ne ay bokkam lañ waaye ñi nga xam ne itam dañoo àndoon ak moom ngir pas-pas muy mag ñi kenn ku ci ne am na fu mu jaar ak ñoom histoire boobu nag day loo xam ne ñun ñii fi ne am na luñ ci xam waaye nag bu xalaat yemal ci suñu bopp rek ëllëg day am ñu ñëw ñooñee war nañu fee fekk loo xam ne dana tax lu xewoon ci yoon wi ca njëlbeen njëlbeen ko ba fii mu ne ñu xam ko lu ñëwaat it ñu yokk ko ci. bu ko defee daal mag ñooñ ñëpp kenn ku ci ne la mu joteeg Serigne Touba dañ ko fay nataal mandargaal ko fa ci ay photo ki ay mbind ak la boowoo ci kër googu ci ay euh, barkeelu lépp dañ ko fay def xam naa daal buñ ko doon tekki ci li tollook li adduna yi xam mooy li arab yi di wax matxaf wala tubaab yi di ko wax musée wala muséum loolu daal ci lañ nekk ba fii mu neen sax fii ngeen di fekk tey ji ñu ngi ci euh, xaful xadaaraati ifriqiya wala musée des civilisations noires fii ci Ndakaaru ndax dañ fa amoon am daje tey ak kilifay barab bi ndax ñoom itam dañuy liggéey ak ñoom ci loolu fi mu ne it sori nañ ci lool nag maa ngi nii ànd sax ak architecte bi Malick Mbow mi nga xam ne moo yor liggéey bi ci wàllu tabax ak Matar Ndiaye mi nga xam ne moo jiite commission scientifique ak sëñ Modou Guèye mi nga xam ne ci wàllu moom itam ci liggéey bi la bokk taxaw ci taxawaay bu rafet rafet ñoom ñëpp ñu ngi nii xam naa da ngeen leen dégg ci kanam di sant itam équipe bii fi ñëw tey muy Foncab TV ci njiitul sëñ Ibrahima Ka ak sëriñ Pape Ndiaye euh, son lool ci liggéey bi wax dëgg yàlla ñoom tam di leen ndokkeel di ñaanal yàlla mu barkeel seen liggéey kon nag li fii nu jëm yàlla ñu ci sëriñ bi gàttandu te kattanal nu ba fi ñu ko bëgg a yóbbu te mu ànd ak ndigalu Cheikh Mahamadou Mountakha yàlla fi yàgg te wér nu mën ko mottali jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. وجاد وجل من تكريمه بانا في سار مولد من في البار ربانا السلام di leen man man Makhtar Ndiaye laa tudd maa ngi nekk euh, jàngalekat ak chercheur rawatina barabu xam-xam biñ naan chercheur ci institut fondamental bu d'Afrique noire bi nga xam ne Cheikh Eh, sama xam-xamin màcc ci walu geust yoy ci ada ak ciosan ak lepp lo xamne dafa jëm ci sunuy ciosan ak sunuy ada liggey bi nga xamne modi di musée du mouridisme eh, ñu fasiyene ko taxawal ci ndigalul Serigne muntaha ndigal lu mu jox Serigne cherif mbacke ibnu Serigne fallu mbacke liggey bobu nak ñu ci and ak mom fasiyene ci taxawal lepp lo xamne moy mooy jumtukaayu Serigne Touba ak i jeexitalam yi nga xamne ñakul ne ci yeen xam nañ barab yi nga xamne fa la nekk mu di ca bayti ca njaareem ak eh, yëpp barab yi nga xam ne Serigne Touba wàcc na fa ay jeexital yoo xam ne yu ñu mën a teg loxo la liggéey bu mag nag defagul nañ ko ci ci wàllu catalogue bi ba fas yéene koo jébbal sëriñ bi ci weer yi ñu jëm balaa ñoo yegg si ca màggal ga te incha allah fas nañoo yéene catalogue boobu bu génnee ñu taxawal waajtaayu màggal gi te waajtaay boobu dafa laaj mbokki taalibe yi ñu mën a ne buñ ci mënee barkeelu ñu def ko te it euh, dinañu mën a dimbale lool ba liggéey bi nga xam ne moom lañ sumb incha allah ñu mën koo jébbal taalibe yëpp liggéey boobu nag yaatal nañ ko bu baax képp koo xam ne am na xam-xam am nga ci wàll képp koo xam ne am na wërsëgam it am na ci wàll kon liggéeyub sëriñ Touba la mu ngi noonu kenn ku ci nekk am nga ci cër te liggéey boobu incha allah dinañ ci jëmmal jépp jeexitalu sëriñ Touba ci wàllu waajuram moo xam Mamor Anta Sali la wala ci wàllu waajuram mu jigéen di Mamor Dia Maam Jaara Buso tey du ñu fàtte kenn ci koo xam ne ci sëñ bi la bokk ba ca tàmbalee ca magam di maam Mor Jaara Mbakke di ci waxit lépp loo xam ne Cheikh Ibra Faati mi ñaan maam Ibra maam maam Thierno Birahim du ñu fàtte ma Massamba Mbakke du ñu fàtte maam Cheikh Anta borom gaawaan du ñu fàtte képp koo xam ne moog sëñ bi ñoo bokk ci wet bépp wàll rek muy Serigne Cheikh Coro muy Serigne Balla Coro ñoom ñëpp dinañ leen ci boole. tey it duñu fàtte doomi Serigne Touba yi nga xam ne ñoo fi nekkal taxawal ko ci wàllu xalifa gi ak ñi nga xam ne jotuñoo nekk xalifa ci góor ak jigéen ñoom ñëpp incha allah dinañ leen jëmmal ci musée bi ak seeni jeexital duñu fàtte it jeexitalu cheikhi Serigne Touba yi xam naa ki ci gën mooy maam maam Ibra maam Thierno maam Ibrahima euh, Cheikh Ibra Fall ak képp koo xam ne mu di Cheikh Moussa Kaag Serigne Mouhamadou Lamine Diop Dagana ak ñoom ñëpp incha allah lim buñ ko defee day juum yaatu nañu cheikh bu ci nekk. incha allah bu ngeen xoolee ci catalogue bi da ngeen ci gis ne kenn lañ ci fàttewut wax nañ ay jeexitalam ak la mu jëf ci yoonu murit pour xamal ko taalibe yëpp incha allah da ngeen ko gis ci catalogue bi catalogue bi dina wane jëfi Serigne tuubaa ci wàllu gu mu neen ci wàllu même tenue vestimentaire yi duñ ko fàtte moo xam mbubbu baylaat yi moo xam mbubbam Serigne Son yi moo xam mbubbu isbu tarix yi moo xam mbubbu faal yéeg yëpp ak yaay faa yéeg yëpp danañ ko ci dugal ba ci café Touba sax danañ ko ci boole ndax mekk na patrimoine boo xam ne murid yee ko wàcce kon mouridisme daal bëgg nañoo wane jeexitalam ci bépp bépp anam boo xam ne danañ ko dajale ci benn bërëb ca Touba te incha allah tàllal nañ loxo bépp murit ak bépp kudut murit koo xam ne xam-xamam màcc na ci lii mu ñëw fekk ñu ci liggéey bi képp koo xam ne liggéey bi am nga ci xalaat wala am nga ci dara loo ñu ci mën a dolli incha allah ubbil nañ la bunt yi te na nga ñëw danañ la accueillir ci ndigalul Serigne Chérif Mbacke ibnu Serigne Fallou mbakke mooy bunt bi kon nag liggéey baa ngoog yéen ñëpp ci bokk euh, bokk yem ak ñun kon nag seen liggéey la sunu liggéey la te liggéeyab Serigne Touba la te incha allah moom la ñuy ngërëm moom ci liggéey bi kon kenn ku ci nekk loo ci mën a barkeeloo ci lu mu mën a doon moo xam wërsëgu xaalis la wala moo xam sa xalaat la incha allah tàllal nañ la loxo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu waa Foncab TV ci jotaay bu am solo bi di ziar ak di sant sëñ Chérif mi ñu àndal ci liggéey bi ak képp ku ci bokk rek maa ngi tudd sëñ Modou Guèye di Mamadou Guèye eh, di yëngu ci dëkk bi donc ñu ànd nag ñun ñëpp bokk ci liggéey bi am ci taxawaay ndax bi ñu yëgee mbir mi. ñu xam ne am na ci loo xamante ne comme matuwaay yuñ ci war a jël ñum xaaruñu ci dañ cee nekk ànd ceeg ñiñ ci war a àndal di ci dox ngir bëgg mbir mi sotti ndax xam aussi li nga xamante ne mooy musée Sëñ Touba di musée Cheikhul Khadim musée Cheikh Ahmadou Bamba njariñ bi mu am am ko ci yoonu murit ñu xam ne loolu lu war a taxaw la yàlla dogal nag ñu nekk ceeg di ci liggéey ci côté technique ak côté finance ànd ceeg ñi nga xamante ne ay partenaires turcs lañ ànd ceeg bi nga xamante ne mooy Malick ànd ceeg aussi tamit ñi nga xamante ne moo di Abdou Hakim Cheikhouna Gueye ñoom ñu nekk ci bopp ba tey di ci dox ba toll fii ñu toll fi ñu ci toll nag ñoo ngi ciy dox ndax gën nañ cee am yaakaar ginnaaw bi ñu demee ci sëñ Muntaxa ba sëriñ Muntaxa gën a feddali kóllëre bi. mu jébalaat ko ki nga xamante ne moo di sëñ Chérif. ci suñu jotaay ñoom ñëpp ñu gën cee amaat beneen taxawaay. voilà liñ ci bëgg ak yaakaar gi nga xamante ne moom la ci sëñ bi am ñu mën ko cee mottali. donc loolu lañ amoon lu ñu ciy wax di ci di di di di sant bu baax di ñaan yàlla suñu borom jàppale nu ci may nu ci ndam ci barki Xaadimu. في سار مولد من في البار ربانا